aram bu il faut ñu am luñ ci wax parce que kenn ku nek amna lo wax ci aram ndax euh, c'est une admirable battante aram une admirable battante une dame de fer dame qui fait l'honneur de gent. attirante dans son corps embelli teintée de grains de beauté très jolie madame marie bien ses couleurs <laughs> kontaan man tay bu sax baax na waaye nag maa ngi sant sunu borom bu wér a wér a wér di sant sama ñaari waajur di sant sama borom kër bee toog ci ginnaaw mbañ joom mbaajoo ma taar ba rey soo ma sonaloon du ma mën a génn bay xam kenn te boo ma ni woon doo demit day metti de bëgg naa lii lool mais kon it du ma mën a dem kon nag jërëjëf jëf nga ma mayee sama autonomie totale bàyyi ma may ànd ak samay nawle may sant sama dëkkandoo yii ay gor piir a ngi nii ndax gënuma leen ëpp leen xam-xam ëpp lew ma leen lenn nag te ñoom ñépp ñi ngi maase ànd ak ma nekk ci sama ginnaaw lu ma leen wax rekk noonu lañ koy doxale ñii ma àndal ma téeméeri nit ak juróom mënuma leen a fay yàlla mi am fay yàlla na leen yàlla fay di sant sunu borom kër yi Ousseynou jóob imam ak ñi mu àndal ndax Ousseynou mooy sunu conseiller principal ba ñuy commencé booba amaguñu sax mbootaay la ma woo ca këram ma ñëw toog ak ñaari soxnaam mu ne ma ñii lu mu bon bon yaa leen mag dama bëgg nga coiffé leen te ngeen ànd àndu gor muy wax bu ma neex ndax man àndu gor laa bëgg di ànd ak doomu aadama te boobu ba léegi léeg mu mat man maa ngi fiy def dis huit ans te boobu ba léegi ñoo ngi ànd ànd gor boobu kon nu Ousseynou jëf may sant nag sama présidente ma bëgg ngeen tàcc ko bu baax muy Fat Badiane mii toog Fat Badiane mënuma koo fay yàlla mi la mën a fay yàlla la yàlla fayal boppam man su ma xamee Ibrahima tey yow yaa tax Fatou su ma xamee keneen nit ku baax ci dëkk bi yow yaa tax man su ma ñimee développement yow mii yow yaa tax kon bajaan man sant naa la bu baax te sunu ànd ak yow amul naxee mbaay ndax man ku ma nax tey bu subaa dootoo ma nax ndax mën nanoo ànd nga séen ma naan kii xamul maa gën a muus kaaleenu muus mais ku ma àndal nag damay ànd ak yow ci dal rek di la xool li ma la xoole lépp doy na ma moo tax ma seeyal sama bopp ci yow nga boole ñoo nga boole ñoo Ibrahima Wade sunu ministre bii Ibrahima li ma ko ñimee mooy boo koy séen rek ba nji ngay njëkk a séen mu di la reetaan keroog ba muy laaj fu nu dëkk ma ne ko Coin Mor la nu dëkk Coin Mor la nu dëkk li waral Coin Mor mooy pour la première fois tey la fi ministre sa teg tànkam monsieur la maire sax xamul ruq bii mooy fan xamu ko de ñi ma àndal a ngi nii xamuñu fii ngent extension man mosuma fee gis picc. wallaay dëgg du député du kenn kon yow ñun tey mën na ni tey bisu tey la ñuy changer sunu tur parce que ñu sommes vivants ndax Ibrahima sant nañ la bu baax gërëm la bu baax. mu di nuyu kilifa yu fi teew yëpp di nuyu monsieur le ministre di nuyu suñu yaay Faat Badiane. di nuyu soxna Aram Mbodj ak délégation bi taxaw ci wet gi yëpp. mooy ñun ñu fi toog gëm ni Macky Sall dañ ko war a jàppale mu gagné au premier tour buñ duggee ci urne yi nañ ko respecté ci diggante bi dara xaju fi lu ñu waaye indil nañ am ngoru wan ko ginnaaw xamal ko ni ko ah dañ taxaw ci suñuy kanamu nawle jël engagement et c'est important. Mm-hmm. dama kay wax fii judo juddoo fii laa yaroo fii laa màggee doomu ngent jikko yi ngent la yor dara jaaxaluñ ci koñ bi donc limay may wax dama bëgg ñu bàyyi ci xel parce que soxna Aram Mbodj dafa engager responsabilité mu yobale ñëpp moy wote buntu kërëm dajale mbolom kon bu yalla nyam ñu am victoire ñun ñëpp dañuy daw wàlli siwaat fii ko té loolu lañuy ñaan malen di wax ni fis fi fi affaire bi nekkon joge na fa parce que li yombul won ci ngent ci ay ginaaw kon bu amé moy niki affaire bi joge na fa li ci dess nak fu lak fayda kay motali parce que président 2012 ba légui mu ngi doxal to loxo ties dugg ci loolu suñu engagement ñun dal li ñu engagé ci watu Macky Sall moy dimbal ngent ak njabot gi ñu ngi leen di sante leen gëreum na seytaane rajim bismillahir rahmanir rahim bama ma sante sama ñaari waju sante sama sëriñ maa ngi julli ci yonent bi sallallahu Alaihi Wasallam. di sante sama ñaari waju di len sante bu baax yéen waa nasru ngeen ci dalal bi ngeen ñu dalal dégg nga ñu ne may nañ leen deux jox mayoon nañu cent carnet mayaat nañu deux cent carnet mi trois cent carnet pour que ñun ndaxte ñun jigéen ñi bu ñu ba suñu doon febaré ñun ñoy dem ci hôpital ba jëkëri ñom liggéey nañu bu ñu jógee ci loolu ñu dem ci bourse familiale yi bourse familiale yi bu ko Macky Sall indee dafa ni nañu responsabiliser jigéen ñi loolu ngeen xam ne muy am importance parce que bourse familiale moom nañ ko indi ñun jigéen rek juruñu ko mu jox ko seen seen jëkkër mais dafa ni bourse familiale bu nekk nañ ko teg ci loxo jigéen moo tax man su ma gisee jigéen ju am bourse familiale di compte Macky Sall dama ni dafa dof ndax di nga gis liggéey nit liggéey ba retraité lu am te yow da ngay toog chaque trois mois ñu fay la vingt cinq mille te nee na bu ñu ko falee da koy yokkaat kon yéen jigéen ñi defe naa ni loolu moo tax ñun te ñun li ñu ñor mooy autonomisation de la femme allègement travaux femmes yi Macky Sall dañu wax leen ma fépp fu jigéen nekk dina fa def machine dinaa leen jox matériel jigéen ñi bëggatuma ñu sonn bëggatuma ñu xëcc ci teen yi fépp foo xam ne lëndëm na ma yóbbu fa lumière leeralal jigéen ñi ndaxte góor ñi bu ñuy làmbatu làmbatu soo demee ba le plus profond au Sénégal ak PUDC bi président de la république def na fa lumière électrification locale euh, rurale bi yéen ñëpp yéen a koy dégg ma bëgg nag ñun jigéen ñi bu ñu kenn nax mu centre de dialyse yi mu ubbi ko ñuy dialyser nit ñi duñu fay dara ah yéen lan ngeen bëgg mais nit ñi lan la ñu bëgg ñun jigéen ñi bëgg ñu lu dul di tukki di wuti ay marchandises di commerce ak di ñëw développement mi ngi jaar ci yoon dëkk bala ngay mën a développer sa dëkk il faut mu am ay tali te gis ngeen lu ñu inauguré ah gis ngeen Ila Touba bi Ndakaaru man barki dem may dem Dakar 30 minutes ngay jógee Thiès egg Dakar ah nekkatoo di xat-xatloo nekkatoo di dara léegi nag man loolu ndax guddi na foofu laa leen di gàttale di leen wax ni jëli leen ñi jëli woon seen carte nañ dem jëli seen carte bu ñu taajeel féeg la 15 beneen lot de carte d'identité na ñëw jëli leen seen carte yi ñun ndax ñun femme développement Thiès Nord yi. ñu gis suñu bopp électorat bi yokk ñu xam ne dugal nañu suñu loxo bu baax baax a baax ci loolu. wa rahmatullah asalaamaaleykum mbokk Nasro asalaamaaleykum imaam Sow ma jiital ko ci ci nuyoo bi imaam maa ngi lay gërëm dina sant ci sa taxawaay man yëgaluma la xew-xew bi. waaye da dégg ni man maa fi ñëw rek nga ñëw loolu aussi ci cër boo ma jox la ci euh, xaritoo boo xam ne xaritoo nañ ko ma nuyu itam euh, biraan Mbaye biraan moom damay faral di wax ni su ma su rakk la su ma rakk la xaw ma su doom waaye ci man la bokk képp ku ma xam mbir cees xam nga ma ak Birane xam nga ni ma mel ci moom xam na xam ngeen ni ma mel ci man Birane di xale bu baax bu am yitte boo xam ni lépp loo xam ne mooy samay mbir man moom laa ko dénk fii biir Thiès bu ma koy doxal Birane maa ngi lay nuyu di nuyu tam Gustave Fall ma ñëw ci soxna Aram euh, waalo waalo bi dañu yàgg tooñante ci biir kër euh, Fat Badiane wala feneen fu ñuy daje saay premier jour le courant passe mais xëy na li ci xamul woon dafa di waalo waalo may waalo waalo xëy na looloo ñu nuyu au passage sa borom di gërëm bu ci li nga wax yow bi ko di wan gannaaw mu continuer di dox dox doxam di dem yonam di gunge Sénégal di tabax Sénégal Fatou waxna ci lu bëre di tabax yeneeni gox Thiès mel coin mort nek ville morte ou commune morte waye lolu ñun ñoko def suñu bop nañu waxante deug suñu biir ñu xolante suñu biir sa non boko xagne lam doon wut mu góorgóorlu ba jot ca bu sedd joté dina sedd ñeneen nak lu mu baax baax baax lu mu yaatu yaatu yaatu lu mu tëddee njaaxanaay lu mu tëdd tëddee njaaxanaay ah bu lay compal de man de bu doon man moom sax xëy na dafa baax xol parce que am na yu bëri yu fi def yoo xam ne bu doon man de ah sama xol bu xaw a xat de bu ma leen bu ma doon joxee feneen diis yéen zéro virgule zéro un laa leen di jox waaye nag waaye nag heureusement que président Macky Sall melu noonu jigéenu Sénégal yëpp la yemale. Gok goxaat nak hmm. buñ ko ko joxul day don problème parce que du ci meuna intervenir bu ko ay nitam jàppalewul ñun ñi ba lepp lu mu laaj ñu jox ko ko bu mu xelam dal ba bu ñuy watee wat gog mu ni ah man rek ñoñu xaarama xol nu ñu taxawé ak mbaa taxaway ba dana jek mu defar ko ba mu jek yéen ñi ngeen bok ci équipe municipale ngeen bok ci doyen bok ci nga xamni ñoy dogal ci walu décision ñu wara jël fi bu boba li ñu gis fi, lu bëre di safaru waye waaye moo tax ma élection yi ñu dëgmal élection am la mu ngi tabax Sénégal man bu ma ci waxé nit ñi war nañ ma xaw gëm tuuti parce que moi je suis témoin de ce l'œuvre qu'il est en train de construire pour le Sénégal motax ni ñu mobiliser wo nañu continuer di ko mobiliser woo bureau de vote bu nekk ñu gañe ko centre de vote bu nekk ñu gañe ko arrondissement bu nekk ñu gañe ko bu ñu gañe ñun ñëpp suñu bureau de vote suñuy centre de vote gañe largement la commune de Thiès Nord gañe largement la commune bu boobaa dinañu gàcce ngaalaama yéen ñi ñi ñi ngeen nekkee woon danaa leen gën a dooleel loolu pour mu mën a nekk mobilisation yu mel nii dugg ci kër yi waxtaan ak mbokk yi ñu retiré ci seen i te amul hésiter ku nekkoon fenen ngir yalla ak yonent bi ñëwal nga bok ci œuvre de construction bi di ñëw parce que œuvre de construction bi presque leer na presque leer na ci des moy rafetal ko jékkal ko ba xelam dal ba ne nag mu ni Sénégal nak ma ngi koy yobbu sur la voie du décollage lolu moy solos li ñu wara agnyar takku fukki fan ak ñaar ak ñett yi ñu déssé ñu wu jëli carte ñu gën a mobiliser yi waxtaan ak mbokk yi waxtaan ak am di jàmm yi waxtaan ak doom yi waxtaan ak borom kër yi waxtaan ak suñu bopp tam pour ni ah man de sama carte dama koy sàmm bu baax a baax dama koy dem jël bulletin président Macky Sall bulletin bu marron bi ba mu bopp fas bi dama koy sànni parce que moom laa bëgg largement mu am ndam fa ma wote loolu mooy li nga xam ni euh, te fii ñu toog fii ñu taxaw man amatuma ci dut ndax liggéey bu rafet bi nga xam ni Fat Badiane liggéey na ko ak yéen ñi fu bëre dugg nañ fa fépp yóbbu nga ma fa te fépp la sentence est unanime lenn moo ñu des dajawaat fii le 24 février au soir ma jox leen rendez-vous nag Cees yaatu na waaye damaa bëgg victoire bi ñu feetee ko fii wasalaam